président Macky Sall daf leen administrer la preuve que vous n'aviez pas raison euh, de demander cette troisième candidature muy euh, muy muy benn euh, à la fin de la fin aussi il vous administre la preuve que république ak jàmmu réew mi c'est au-dessus de tout j'imagine que c'était pas une décision facile est-ce que président de la république informé na la yow le chef du gouvernement ba muy jël décision parce que dañoo ne wala kenn xamul woon président de la république lay wax kenn xamoo lan lay wax Maïmouna je suis je suis je suis premier ministre euh, du man ma war a wax li may waxtaan ak kilifa li may waxtaan ak ministre j'avais un point de vue wax naa ko président wane naa ko en public le président a pris une décision souveraine. Vous l'avez appris en même temps que les Sénégalais. Euh, je ne peux pas répondre à cette question. OK. Je à cette euh, question ndax dama am euh, droit de droit de réserve parce que premier ministre aussi ni nga mën a xamee bari na mën nañ la bañ a wax sax nga xam tout ça c'est ci ci ci ci administration état day doxee noonu toujours est-il qu'il n'a pas échangé avec moi fondamentalement sur la pertinence de faire ou de ne pas faire je lui ai donné point de vue waxtu wi mu jaree ma jox ko point de vue maintenant nit ki booy c'était quoi ce point nit ki booy waxtaan ak moom da ngay am ay yëg-yëg di nga xam ni tey jii li nga koy wax tu ne l'as pas convaincu même nii mën naa wax ak yow duma ma la convaincre ci li li ñuy wax tout comme mën nga wax nga xam ni convaincre ma mën naa la wax defal mais mu gis ni li nga ma tontu wala li nga ma laaj wala li nga ma gëstuloo en tant que premier ministre dafa mel ni tu n'es pas convaincu wala tu n'es pas d'accord ça ne signifie pas que tu m'as mis dans la confidence wala wax nga ma mais sa ne signifie pas non plus xaw ma fi nga jëm loolu je pense que c'est extrêmement important li am solo moom mooy décision bi président jël ñu ngi koy rafetlu di ko saluer xam nañu aussi décision boobu moom ma gënoon. ci waxtaan maintenant waa ab waa waa APR walla waa Benno wala beneen citoyen boo xam ne jàppoon nañ dafa war a def ces citoyens n'ont pas tort parce que aussi euh, la situation elle est là elle est difficile nous sommes dans un environnement très complexe mu am ay yaakaar yu bari yoo xam ne am nañ ko ci réew mi. ñii jàppoon nañ ni beneen mandat wala deux ans wala cinq ans bref euh, doon na permettre passe bi ñu nekk ñu jàll ko jëm ci leneen parce que réew mi moo ñu ëpp ñun ñëpp et ce important c'est que réew mi ou ce encore important mooy réew mi ñu nekk ci jàmm réew mi nekk ci salaam réew mi ci progrès bi nga xam ni ñu ngi ci depuis 2012 que progrès boobu mën a continuer ci waxtaan euh, laaj na la sa point de vue nga jox ko ko point de vue mooy da nga ko da nga war a dem. man sama point de vue ci ci meeting laa ko wax. ci meeting nga ko wax. deux fois ou trois wax nga ko une première fois à l' assemblée nationale euh, wax nga ko lors d'un meeting euh, dans la banlieue mais pourquoi l'idée selon laquelle euh, Amadou Ba n'est pas d'accord avec le la troisième candidature pourquoi cette idée-là elle est restée ah oui, mais tenace là, là elle engage ñi ko ñi koy ñi ko ñi koy ñi koy xalaat ça c'est pas ça le problème nit ki la nga war a wax ko la nga war a def def ko fexeel ba la ngay wax dëppoog la ngay def li ci des nag nit ki di commentaire d'accord wala bañ a d'accord ça quand même nekk loolu kooku ñi mu ñi ñi nga ko war a laaj mooy ñooñu pas à moi man li ma xam moom mooy dox naa ko wax naa ko waxtaan ci naa wax naa ceeg moom wax naa ceeg ñeneen parce que nous des camarades yoo xam ne nu partageons les mêmes convictions là il a pris sa décision que je salue encore une fois que je partage j'ai pas le droit de faire autre chose ou de dire autre chose maintenant li amoon wala li ma doon xalaat loolu jeex na et c'est ça aussi un fonctionnaire et un grand commis de l'État tu défends un point de vue bu jeexee ton point de vue n'existe plus la ma doon xalaat wala la ma doon wax loolu jeex na mais li am solo ci li nga li nga laajte léegi nit ku nekk da nga war a fexe ba sa doxalin dëppoog say jëf maintenant bu ko nit ñi gisee baax na bu ko nit ñi gisul it yàlla moom xam na tout le reste après euh, politique mooy andi ay supputation on, on parle des uns et des autres tantôt en bien tantôt en, en mal mais loolu moom fu doomu aadama la